jamono ji kenn umpalewul ne am na coup d'état ba xew fële ca Niger ba tax na sax li nga xam moo di waa CEDEAO daal dinañ jël seen décision ne dañoo fas yéene yóbbu li nga xam moo di quelques soldats ñu daal dem foofu ba démb sax euh, ministre bi daal dina génn ne aussi dañuy jël fii tamit quelques soldats bi yóbbu foofu moo waral benn coow ab boo xam ne am na fa fële ca Niger ndax Sénégalais yu bëri ñoom loolu arrangé wu leen ñu ngi fa commencé andi ab hmm. mu nekk loo xam ne jamono ji doy na waa nag coup d'état nag foo ko xam nga nag dëkk boobu jaamu amu fa asan mu nekk lu méttee métti noo mm-hmm. am na solo xanaa di ñaan rek euh, réewu Afrique yi xam ne ñoom ñoo bokk lépp rek benn lañ. Mm-hmm. ña nekk réew bii ñoo nekk réew bi ñun ñunu neen la. Mm-hmm. comme que ñunu neen la nañ fexe rek ba bu ñu kenn rax ba dugal ci ñun lu bokkut ci ñun. ñu fexe jeex jàmm indi jàmm si suñu réew Afrique yi ndax amaguñ doole xeex. amaguñ doole euh, coup d'état amaguñ doole. buñ fexee rek ba ñi nga xamante ni ñoo yoree réew yi. Euh, jubbantiraan yi dox si njub. dimbali ñi nga xamante ni ñoom lañ jiitu rek. Mhm. Euh, xeex mën naa am ñàkk ba kenn dem di sotti. d' accord nga ci Sénégal yóbbu seen i soldat foofu noonu. waaw ñu ko def xañ na am nañ xam-xam bu tax ñu def ko. xam nga ma foofu mais ñi ko ñi ko def. Mhm. xañ na am na fuñ ko teg ba tax ñu mën a dem bàyyi ñii farak ñii. Mhm. am na fuñ ko teg. Mm, loolu daal di gis. baam bi ko gisee. Euh, di di sama rakk xol xanaa kontaan ndax xam nga ñun pays Afrique yëpp laay wax. ñun ñëpp kenn ku ci nekk umpale woon na rek am nañu suñu indépendance mais amuñ liberté. Mm-hmm. te c'est moment kenn ku ci nekk ñu am liberté. jot na de nag pays Afrique yi ñu ñu ci jot a lim am na ñu ci am ay problème ku ci mel ni Mali ak Niger gi tey ak Burkina et tout. Mm-hmm. yàlla na yem ci ñoom yàlla mu yegg ci senegal ndax ñun attanuñ loolu xajoowuñ ko yàlla nañ ci dégg doy rek. waaye tamit dañ ne nee na ko bandom bu dee ci mm-hmm. sens propre man sama dégg gu gàtt. pour Niger am liberté la ñuy xeex. génne système bi ni muy doxee tubaab yi seen loxo génn ci ñoom mm-hmm. am nañ ci droit kenn ku ci nekk yaa moom sa réew njiit la moo ko war a doxal certes mm-hmm. CEDEAO mu ngi ci lépp mu ngi ci ñëpp mais tey am na foo xamante ne man sama xalaat laa waxee man gis naa foo xam ne mu ngi fay perte dooleem fi mu toll nii ci sama xalaat man am na foo xam ne mu ngi fay perte dooleem donc nag tey bu fekkee ne ñëpp moom lañ yaakaaroon kuy jooytu dem ba ci moom di jooytu ngay régler ay problème mm-hmm. am muy métti Mauritanie moom joxe na kàddu nee na ñoom bu Nigéria bu naree métti ci ñoom mm-hmm. ñu nar leen a sonal ca xab ca xabe leen dañ ciy dem dugg mm-hmm. te xam ngeen guerre militaire du yomb ay naara fa nekk dañoo sadi dañ ma baal donc Sénégal nag bu fekkee ne ci sens propre rek la moo leen tax a jug nit mbokkam ñun ñëpp ay africain lañ parce que ñun ñëpp ñoo bokk sous région bi ñoom ñu nekk ci sous région bi autant pour moi lu leen okk xuriñu parce que sénégalais yi am na ñu nekk Niger Sénégal nigériens yi aussi ñu ngi fii Sénégal mu am na sénégalais yi fa nekk Sénégal Mauritanie yi itam am na ñu nekk fi Sénégal donc comme ñun ñoo séq am njaay indi jóob bi kenn mun ta dem sans si sa morom mhm. kenn ku ci nekk am nga fi nga xamante ne fa nga yaakaar ne sa wërsëg fa la nekk nga nekk mhm. donc na rafet may wax lancé benn appel tam ci nigérien sénégalais yi nekk foofu que bi Aminata Tall Sall waxee na sa Aminata Sall waxee Aïssata autant pour moi euh, waxee am na ay ci réplique am na ay réplique yi nga xamante ni xew na ci internet bi mm-hmm. xale yaa ngi commencé def ay appel ak i menace man dama ne xeex suñu biir dafa xeewi sénégalais yi nañ rafetal lépp ñoom ña fa nekk su fekkente ne ñoom lañ ñoom ñëpp ñoo ñu bokk teen ñooy laxasoo goñ mm-hmm. àddina lépp lépp lépp si waxtaan lay mujj xët xët rëdëg rëdëg mayewul dara par A ou B dañu koy tegaat sur la table mettre les points sur les i ñoom ñu xool nan lañ bëgg ñu doxalee ko keneen tamit xool naka la bëgg ñu doxal ndax ñun Sénégal gi ñun tam liberté lañ bëgg te amaguñ ko ndax ñun ñuy noot kon daal da ngaa gis ne waxtaanee ko ba jubóo dañ koy waxtaanee par aw ou B ci waxtaan lay jëm lay mujj oustaz mhm. <laughs> mu ngi noonu de Adja Didi mhm. waaw sant yàlla rek alhamdulilah euh, tey ñaan ci Afrique jàmm dëgg la ndax lu mën a xew daal guerre moom jigul kenn. Mhm, kenn bëgg ko. guerre moom kenn bëgg ko. Mhm. li mën a xew mooy ñu ñaan yàlla yàlla def fi jàmm. ci Afrique ni ko bàyyi Assane waxee. Mhm. mooy sous région bi ñu fexe ba jàmm di am seen biir. baa mi tam wax na lu am solo ñu bañ a créer ñu bañ a ñu def très attention ci piège. ci ñoo xam ñu bokk ñoom ñoom euh, fi nga xam ni fa la ñu nekk. ci européens yi nga xam ni doole ñu ñu am ñun amuñu ko. dimension bi ñu am ñun amuñu ko su fekkente nag Sénégal jël yóbbu leen peut-être côté boobu côté côté diplomatie la ndax itam bu fekkente da ngay toog rek ni doo jàppale kenn mm-hmm. bis dina jot yow sa bopp yaay am problème loolu tam dafa jër a sóor Assane mm-hmm. dafa jara bàyyi xel mm-hmm. bisañ ci bis yow moom ñaan ñu ko yàlla yàlla bu mu am bëgguñu ko tam waaye bis dina jot yow yow sa bopp dangay am problème te bu doon sa sago di nga bëgg ñu la jàppale loolu côté diplomatie la li Baye Assane wax nit mën na cee bañ a xuus parce que doo xam lu tax président bi jël engagement boobu ba joxe charte euh, ndigal loolu pour ñoom ñu dem jàppale ji leen soo gisee armée génn rek di di jàppale ji beneen dëkk ci guerre ak wala ci lu mu doon ngir sécurité problème mu diplomatie mhm. moom mooy waral loolu mhm. su boobaa nag pexe du am il faut Sénégal dem foog ñu jabal ay ndaw mhm. loolu mënul ñàkk yàgg na am ci àdduna bi yàgg naa am ci pays africains yi yàgg na ba yàgg naa am loolu nag su boobaa lu mën a xew daal lépp lu ñu ciy def na doon loo xamante ni lu défable la loo xamante ni ku ko dégg du mer dina xam ne lii Sénégal war na koo def mhm. bu fekkee fekkente nag lu ñu nar a jural ayib la mhm. wala mu jar naa jural loraange ëllëg loolu moytu ko moo gën engagé ko soxna dëgg la waaw Didi dafa déglu naa plateau bi dafa nekk mbir mu xaw complexe ndaxte CEDEAO en question xam nga Afrique dafa am ngelaw lu fi commencé dugg mhm. te ngelaw loolu noonu maanaam nit ñi mënuñ ko xeex ndax lu war a am la Afrique dafa commencé fippu ni ñu ko mën a waxee fipp jóge ci nooteel bi nga xam ne Occident yi pays occidentaux yi noot nañ ñu ko maanaam di ñëw fii di jël suñuy ressources di yóbbu ndax euh, da fa am ay fay yu am ci semaine bale génn ki nga xam ne mooy président Russie Poutine dafa organisé woon benn sommet tuddee ko sommet Russie Afrique uh-huh. njiitu réew yi daje fa xam nga ne bu yàggul am na coup d'état Burkina euh, avant Burkina am na Mali après Guinée uh-huh. après Burkina soog a ñëw Niger nag mooy bi nga xam ne tey moo mujj ci biir sommet bi euh, président Burkina Ibrahima Traoré dafa ne moom dafa am problème maanaam génération bu mu maaseel ñu fàttali ne moom trent ans la militaire la mu ne génération dafa am question yu ñuy laaj boobu ba léegi te amuñ ci ay tontu mu wax ci wax bi mu tënk ma tënk ko mu ne comprendre lu tax suñu njiit yi bu ñu demee ci tubaab yi di yelwaan di mànje te ñun Afrique ñu am bépp ressource mu wax ko ci soleil wax ko ci ndox wax ko ci lu bari Macky Sall jël tontu ko ne ko ñoom demuñu pour yelwaan da fu ñuy dem dañuy wax ci partenariat boo xam ne Afrique da ciy gis boppam keneen ak keneen mu nekk discours ñaari génération léegi nag loolu tey moo wal si fii Afrique dafa am vent bu fi dugg boo xam ne muy vent de changement léegi peuple bi ñooy réclamer seen indépendance malgré bu fekkee ne euh, occidentaux yi jox nañu suñu indépendance ci kayit mhm. mais dañu continuer noot ñu ci wàllu ressource léegi nag askan wi askan yi ñooy laaj indépendance moo tax bu njëkkoon ko nga gis coup am dëkk bi yëpp frustré toog mais léegi coup bu amee dëkk ba ñooy génn di tàccu ñuy def coup kon y'a problème léegi nag CEDEAO war a def face ak crise boobu dugg Afrique CEDEAO nekk kuréel boo xam ne pour man dañ ko war a tëggaat ndax mbir boo bëggee am crédibilité ci ñi ngay administré ah, waaw dafay fekk yow sa bopp maanaam sa kàddu am lu muy jar may fàttali ne ñun fii Sénégal dañ ci am kaa yu bari muy kaaw Karim Wade kaaw xalifa Sall ak parrainage bi ñuy wax mm-hmm. bi nga xam ne CEDEAO dafay wax ne baaxul CEDEAO dafa ne parrainage Sénégal baaxul mm-hmm. bi ñu waxee ne nañ ko arrêté fii ministre yeeg waa pouvoir bi ñëpp a génn di réclamer souveraineté Sénégal ne CEDEAO kuréel la boo xam ne kuréel bu am la mais Sénégal c'est un pays souverain et que dañu am suñu loi ñuy doxal waaw boo mënee loolu mën ko ci lii mhm. ndaxte bi CEDEAO di dem di dugg Gàmbi dañ waa gambi ñoo bëggoon jug yaay jàmme jóge fa mhm. bi ñuy dugg dañ leen di tàccu mais tey CEDEAO bu lëkkaloo ak yenn pays yi Sénégal bi wax ne yóbbu ay soldats nangam nangam déjà dinañ mettre en danger suñu compatriotes dafa nekk mais bu ñu demee dañuy xeex ak waa Niger non seulement dinañ xeex ak waa Niger dinañ xeex ak waa Mali dinañ xeex ak waa Guinée mhm. dinañ xeex ak waa Burkina te nag Algérie mu ngi ciy wax Russie mu ngi ci ginnaaw mu nekk hmm. mbir mu compliqué moo tax ñun Afrique war nañu bañ taal guerre suñu diggante CEDEAO na xoolaat te boppam ndaxte ci biir CEDEAO daf ci am ay fait yoo xam ne dafa am te ñoom réglé wuñ ko Alpha Condé nekk na biir CEDEAO di def troisième mandat CEDEAO ne tekk di ko seetaan hmm. Alpha Condé di rey askanam ba niñ ko jëlee foofu coup xam loolu baaxut euh, Alassane Ouattara hmm. amul droit def troisième mandat mu laaj troisième mandat CEDEAO waxul dara xam nga bu fekkee ne da ngay combattre injustice bu fekkee dafa am ñu bokk ci yow sa kuréel di ko teg seen askan boo kaasee nit ñi ànd ci ak yow bu ëllëgee bu leneen xewee boo kaasee nit ñi mën ci ànd ak yow a tax CEDEAO déjà moom moo am problème mhm. te li may wax nag ministre bi dem ci communication bi daf ci def ay erreurs yu bari ndax ministre bi ministre des affaires yor kàddu Sénégal ci wàllum jëflante bitim réew mhm. warul wax ni coup d'état dafa soof ah waaw dafa dem ba ne coup d'état yi dafa bari léegi te dafa commencé soof te loolu waru ko wax loolu du kàddu kilifa ña nekk seen dëkk dañoo souverain bu ñu defee coup d'état seen dëkk askan bu ànd ci ak ñoom ndax peuple bi moo légitime ah. coup waaw donc kenn du ko kenn du ko kii kenn du ko. kenn du ko daganal coup d'état lu soof la déedéet sooful mais kenn du ko daganal kenn bëggul coup d'état mais dafa soof mais quand même li li tax mu bari Afrique maanaam ñi ñu fal démocratiquement ñuy jiite. Mhm. il faut ñu taxawal seen askan. gis nga Niger dëkk bu am richesse la. dëkk bu bari richesse la bu nekkee ñoom nit ñi dañoo màgg di gis richesse boobu te ñuy gën di pauvre mhm. ça c'est un problème du problème euh, Niger kese léegi nag luy raam la di ñëw yàlla bu mu agsi fii moo tax ñu war ko gérer de manière intelligente manière bi ñu ko war gérer mooy ku ñu fi fal démocratiquement taxawalal sa askan ressources yi na des sa askan mhm. bul fexe tubaab bi ñëw di ko jël ndax loolu boo amee ëllëg li dal Niger dal Burkina dar Mali. fii jurut ñaam sunu mag ñaa ngi fi suñ mag ñaa ngi fi ku demee ni maam El Hadj Malick maam Borom Touba maam. ñooñu ñëpp nekk fi waaw foofu nga naan yàlla bu fekk. ak ñaar <laughs> jur sóoraale ni nga waxee ni daa mel da jàpp ni day am fii. Assane waxuma ne coup d'état daf fi am. <laughs> ah mais ni nga waxee ni di ñaan naan. coup kenn ñaanu ko maanaam coup instabilité bi mu andi ci dëkk. Mm. maanaam kenn ñaanu ko. dëgg la ndax coup fu mu am dina am instabilité boo xam ne militaire bu jëlee pouvoir bi le temps ñuy organiser wu dëkk bi dina dem au ralenti ñiy investir dootul nangoo investir. Mhm. tourisme dootul dox dara dootul dox. kon coup d'état kenn ñaanu ko mais dama ne sunu réew yi il faut ñu xoolaat dañuy ñuy gouverner seen askan. Mhm. loolu ku ko deful. mais après lii mooy ñëw. kenn ñaanu ko nag. moo tax mhm. suñu njiit yi xam nga tey bu ñu demee ba sommet Russie ñaari président taxaw président Macky Sall bi nga xam ne. 1961 la juddu ak ki nga xam ne 35 ans ah, daanaka mën a nekk doomam. Mm-hmm. mu leen mu koy mu leen di taxé de mendiant de yelwaankat ba moom muy jug nañu ñëw ñu pour pour mànji loolu ay wax la ndax Macky bi mu waxee ba pare Poutine ci boppam bi muy résumé. Mm-hmm. maanaam daanaka Ibrahima Traoré la jox la jox dëgg parce que maanaam terme yi occidentaux yi di utiliser. Mm-hmm. ay néocolonial ak lu ne termes yi ñuy utiliser ak di xeex ay pour benn place. Afrique am ko rek waaw Sénégal Afrique benn place unie foofu noonu nañu fexe. contrat yi ñu signé ak occidentaux yi. ñu fexe maanaam seen Afrique di ci gis boppam. Mhm. Afrique moo nekk continent bi ëpp richesse ci ci àdduna. macha allah léegi depuis des années mënuñu développé. dëgg la dëgg la ah Modou <laughs> problème.